ñu xam ne donc li nga xam ne président Ousmane Sonko ak Pastef ñu ngi koy dund du lu bees comme nag léeg-léeg xew-xew yi dañuy bëri tegaloo ba nga xam ne mën na waral euh, ñu fàtte yu bëri mais ku seetaan yaakaar naa film bi dinga xam ni Pastef yàgg nañ ko xoñoñal yàgg nañ ko jéem a teg coono ci lu jiitu lii am na ay parties yoo xam ne sax daanaka dañ ko tëb ndax film ñëpp xam na ne dañ koy tënk huit minutes mënoo ci def lépp mais li am solo rek mooy dafay baax nit ñu comprendre tey mën a répondre ci benn question kan moo yore violence ak kan lañuy ñuy violent yaakaar naa ne ku seetaan lii di nga xam ne kenn ci àdduna mosul gis Pastef jóg attaqué benn convoi benn responsable lu parti politique wala kenn koo xamante ne nii tey ràññee nañ ko ñu ne Pastef dafa jóg attaqué ko wala dara mësul am wala benn responsable Pastef dafa jóg teg naka su dul noonu ci kenn koo xamante ne nii responsable de l'autre côté la. loolu nag li mu wane ne rek xëy na dinañu jéem a dëkkal fu ñu dëkkul waaye li am solo mooy tey euh, wedd gis bokku ci li leer mooy Pastef moom lañ teg coono. mbokk yi lii yëpp nag président Ousmane Sonko di ko doxañ ci livre bi livre boo xam ne da ko jagleel balaa kenn sénégal yi parce que comme ni mu ko yàgg a waxee ginnaaw yàlla ak yonente bi peuple bi la jox boppam donc askan wi mooy kiirlaayam lépp loo xam ne aussi ci xeex bi ñu sumb mu ngi ko ciy daj wala Pastef mu ngi ko ciy daj askan wi jar na ko moo tax suy bind askan wi lay njëkk a xalaat mu ni nag dafay baax ngir mbir leer mu ñëw dëxëñ ay ponk yoo xam ne mën nañ koo wax ci ñeenti ponk ak i annexe ponk bi ci njëkk mooy liy waral manifestation massive ak populaire ponk bi nga xam ne boobu ci biir boobu la ñuy waxee complot politico-judiciaire bi nga xam ne mooy affaire Prodac Mame Mbaye Niang ak affaire Sweet Beauté Adji Sarr waaye tamit traque ak persécution bi nga xam ne ñu ngi koy teg ci askan wi particulièrement ci militant wu euh, ak sympathisant wu Pastef wax na aussi ci forme ak bilan répression aveugle maanaam xeetu repression wala tëcc yi nga xam ne góor gi mu ngi koy tëcc askanam ci lu luñ ko xamewul woon ci Sénégal ak bilan bi mu indi ak affaire milice ak nervi yi dem na ba tey mënatuñoo xam sax ñaata nit ñoo faatu après nag dafay am solo ndax loolu dafa indi ne senegal àdduna bi yëpp ko tëggat te gis ngeen des dizaines de réactions sur le plan international bi nga xam ni lii ay réew la lii ay personnalités yu ñëpp xam la lii ay organisme internationaux la yu daanaka yu ëpp solo Nations Unies ak yu ni mel loolu yëpp nag euh, dañ ko boole indi ay firnde daal di koy teg ci taabal ji laaj ne dañuy def benn enquête international boo xam ne ngir li xew yëpp mën a leer yaakaar naa ne ñu bëri ci yéen dégg ngeen di Juan Branco di wax te ñu bëri jàpp ni xëy na bluff la walla dara waaye ñoom ñu ko ndax gis ngeen tiitaange ci ñoom ndax liggéey bu sérieux la te incha allah le 22 à 11h jeudi Juan Branco dina def conference de presse internationale pour duggu ci biir dossier CPI bi ngeen xam fan la ci toll ak yenn jéego lañ ci teg. te loolu incha allahu rabbi euh, di ngeen ko mën a seetaan en direct sur nos plateformes mais aussi li ñu wax ni yëpp nag dañ ko doxee ci li ñu wooye ay annexes 22 annexes mbokk yi yoo xam ni boo ci dugg parce que après dinañu partager lien bi fi nga xam ne di nga fa mën a télécharger document bi 36 pages waaye di nga mën a cliquer à partir ci lien boobu dugg ci. annexe yi di xool benn par benn nu mu la neexee lépp lu ñu wax ñu ne la boo demee ci annexe nangam di nga fa fekk preuve loolu nag euh, mbokk yi moom lañ leen indiloon waaye euh, dinañu projeté léegi nii euh, li nga xam ne mooy document bi parcourir ko rapidement parce que après di ngeen ko am donc amuñu temps di ko benn bennal juste pour ngeen gis ko xam ni ñu ko liggéeyee ak Euh, ponk yi nga xam ne tënk nañ ko ci ak li nga xam ne laaj nañ ko su ko defee après ma bàyyi sama naataango yi ñoom ñu ñëw ci euh, euh, wàllum anglais bi ak français donc livre bi dañ ko tuddee nga ko def version